mbokk yow xale bu góor bi bu jigéen yàlla gën a yey ñu rus ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa waar saxaaba benn bis yaramam tàng jër jógal ne istaxyu min allahi xaqa alxayaa fa qaala alsaxaaba ya rasul allah inna nastaxyi min allah walhamdu lillah فقال النبي صلى الله عليه وسلم من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى wal batna wa ma xawa wal yadkuril mawta wal bila yonent bi ne saxaaba yi rus leen yàlla dëgg-dëggi rus am leen kersa ci seen borom saxaaba yi ne ko yonent bi ñun day rus nañu yàlla yonent bi leen ku rus yàlla dëgg mooy koo xam ni day sàmm boppam ak la ca nekk da sàmm sa bopp yow jeune bi sa bopp dafa am ñetti mbir yu ci nekk foo jëmee safara ñoom ñooy sabab bi li ci jiitu mooy bët sa bët danga koy contrôler danga koy sàmm li ci topp mooy làmmiñ ku dugg safara làmmiña la fa dugal waaye li ci topp mooy nopp fexeel ba li sa bopp yiir ci ay defkatu bàkkaar nga rus ci yàlla rusal yàlla ci say bët rusal yàlla ci sa làmmiñ rusal yàlla ci say nopp mu ne wal yaxfazil batna wa ma waa biir ak la mu taanu na nga ko sàmm biir li mu taamu moom biir la ak pëy foofu it problème la bu rëy a kon yow ndaw li yow mi dund sunna yow mi bëgg jëm ci sa borom qul inni zaahibun ila rabbi sa yahdin danaa dem ci sama boroom ngir mu jubal ma soo bëggee sa boroom jubal la dangay rus yàlla taala wa tabaarak rus leen yàlla ci bàkkaar yow ndaw li rusal yàlla ci njaaloo rusal yàlla ci moy rusal yàlla ci ñaawteef rusal yàlla ci bàyyi liy merloo yàlla nga daw ko soo buggee nekk xaritu yàlla soo buggee jege sa borom soo buggee yàlla gërëm la rusal yàlla ci li muy bañ lan moo tax ngay def li sa borom bañ ndax doo rus yàlla yàlla mi nga xam ni moo la jox sa jëmm ngay tilimal sa jëmm di xasawal sa jëmm di salteel sa jëmm ci njaaloo ci njaaloo di taqal sa bopp mani bu la lewut di taqal sa bopp ñaq bu la lewut borom bi ne wala bu zina innahu kaana fahisha wa saa waxuma sax ngeen njaaloo waaye bu leen ko jege ndax lu bon la lan moo tax yow xale bu góor bi ngay taqal sa bopp ci deretu njaaloo lu tax ngay taqal sa bopp ci manium njaaloo yow xale bu jigéen bi it la même chose sa boroom jox na la lépp loo soxla woon wa ataakum min kulli ma saaltumu borom bi nee na jox naa leen lépp li ngeen ma laaj may naa leen ko dóoru yàlla lu tax nga bàyyi ba guddi waxtu wi jaamukatu yàlla yi tànn di kàbbar di julli ngir dawee ko safara yow nga jëli jigéen ngir deme ngir dawee ko safara yow nga jëli jigéen ngir demee ko safara waliyaasu billah bàyyi ba digg guddi ñii ñu ngi nelaw ñii di naafila ñii di jàng alquran ñii di jege seen boroom nga waroon wax ni man dinaa ci bokk waaye nga dem jëli jigéen bàyyi ba guddi làqatu yaag moom que sa néeg walla ca otel ba walla feneen di làqu bëtu nit ñi ndax bu ñu la gisee mu nekk gàcce lan moo tax nga rus nit ñi te rusuloo sa borom lan moo tax ngay làqu nit ñi te woo sa borom borom bi ne tax min an naas wala yastaxfuuna min allah bàyyi leen ñu ngi làqatu nit ñi te mënuñ maa làqatu guddi gi kan moo ko moom sa boroom kan moo ko lëndëmal sa boroom nga foog ni sa borom dafa lëndëmal guddi gi pour nga nga foog ni sa borom dafa lëndëmal guddi gi pour nga làqoog doomu jàmbur nga foog ni sa borom dafa lëndëmal guddi gi pour nga làqoog jabaru jàmbur xanaa doo xalaat ni sa ndaw lii xale bu ndaw nga lu tax ngay sànq sa dund ci lu ko jarul lii ngay làqatu sa borom gis ne la alam yaalam bi anna allaha yara alam yaalam xanaa xamoo bi anna allaha yara yàllaa ngi lay gis de làqatu nga waa koñ bi ndax ñu ngi nelaw làqatu nga nit ñi jigéen ji sax mun nga ko muur mu sëgg rus nga dugal sa biir néeg mu ànd ak yow sa borom mer iblis di kontaan yow pare nga pour merloo sa borom ngir bégloo seytaan ñëw làqu ak jigéenu jàmbur ci sa biir néeg ci sa kawlal ci waxtu jaamu yàlla nga ne fa di mooy yàlla alam yalam bi anna allaha yara borom bi ne xanaa xamoo ni yàlla mi ngi lay gis xay li gën a doy waar kallaa la in lam yantahi la nasfaan bin naasiya yàlla nee na wallaahi soo bàyyiwul li ngay def dinaa jàpp sa càmbar ngay bopp diri la nit ñi di ko xool ba bëccëg lu tax doo rus sa borom nga foog ni kenn gisu la amul kenn kuy làqu di njaaloo lu dul gis nañ la xanaa kay nit ñi dañoo wax walla ñu bañ a wax waaye gis nañ la de yàlla du ut lu amul seede amul du ut lu amul seede kaay ma wax la ni bi ngay njaaloog sa doomu dëkkandoo sa jabaru dëkkandoo sa rakku dëkkandoo pour yow kenn gisu ko ah kay yow gis nga ko yow ci sa bopp yow mi koy def moom it gis na ko xaw ma ngeen wax ci walla déet ah yow mii njaaloo gis nga ni yaa ngi njaaloo te yaay seede sa bopp moom ndaw si nangu gis na ni mu ngi njaaloog yow yaay seede sa bopp ndax nangu nga ku njaaloo ak sa rakk bu jigéen wallahi tontu bi mooy déedéet ndax nangu nga ku njaaloo ak sa jabar wallahi tontu bi mooy déedéet ndax nangu nga ku ko def ak sa sœur tontu bi moom mooy déedéet gis nga say cër waxuma la yow sa jëmm lépp ñu seede ni danga njaaloo woon danañ ko seede say bët ñooy taxaw yowmal qiyaam seede la ne yàlla diw da doon njaaloo say nopp ne yàlla diw da doon njaaloo say loxo ne yàlla diw da doon njaaloo say tànk ne yàlla diw da doon njaaloo sa cër bi nga doon njaaloo yi sa sexe boo dee góor boo dee jigéen dana wax wallahi ladi laa ilaha gayru moo tax borom bi wax lu am solo yowma tashhadu alayhim alsinatahum wa aydihim wa arjuluhum bi ma kaanu yaamaluun yàlla nee na tey la ngeen defoon seeni cër ñoo koy seede yowma tashhadu alayhim alsinatahum sa làmmiñ mooy ne yàlla diw maa ko jëloon une heure du matin deux heures du matin làqoog moom dugg ak moom fenn njaaloog moom sa làmmiñu koy wax de wallahi say loxo ñoo koy wax say tànk ñoo koy wax sa awra mooy wax nga di ko dégg lan la ci li nga doon jëf xam nga ni li doon jëf du lu neex borom bi taala wa tabaarak borom bi ne sa gémmiñ danañ ko tëj ba du wax al yawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bi ma kaanu yaksibuun yàlla ne tey seen gémmiñ yi danañ ñu cell duñu wax seeni loxo di wax seeni tànk di wax seeni cër di wax kon rusal yàlla balaa ñii di la seede ki nga daw ba làqatu danga nga fàtte ni danga am jabar ndax li ngay def bëgg nga ku ko def ak sa jabar ndax bëgg nga ko bu la bakkan mën bu la seytaane mën bu la xarit yu bon mën rusal yàlla néeg bi nga doon taxaw di kabbar di julli ay ràkka nga dugal ci doomu jàmbur boo takkul te nga fa julli gee di fa julli ci tisbaar di fa julli tàkkutaan léeg-léeg sax nga julli fa ay ràkka ngir toroxlul yàlla néeg boobu nga jël tey di fi dugal keneen ku la lewul xanaa doo xalaat xanaa doo rus ana sam xel li ngay def nii lan la lay jëriñ wallahi dalay wàcc rek te daraja boo naroon a am ci yàlla danga koy perte njaaloo baaxul góor du ko def jullit du ko def xale bu góor bu bëgg a conserver avenir du ko def ku bëgg teraa ngay ëllëg doo ko def moytu leen njaaloo yàlla nañ ko yàlla moytuloo yàlla nañu yàlla may aaral ñu suñuy dënn suñuy xel suñuy xalaat ba duñu njaaloo allahuma tahir qulubana wa hassin furujana yal na yàlla laabal ñuy xol laabal ñuy xel laabal suñuy cër dara gënul yëf njaalu su ñëwee yowmal qiyaam bokk na ci ñi gën a torox ginnaaw ñi bokkaale mooy njaalookat yi ci fuur lañ leen di teg di leen lakk comme ni ñuy lakkee jën boo demee ci tefesu géej yi ni ñuy lakkee jën di ko jaay cent franc di la ci dugal ay équipement yeeg yooyu noonu lañ lay lakkee nga taxaw ci fuur parce que yaa lakk lu sa bopp yaa doon njaaloo mani yu bi duggoon sa yaram te mani yi boobu daganut ndax newuñ dagan na mayuñ la ko mani yu boobu par force day génnaat parce que dugal nga sa jëmm takkal nga sa bopp ci lu bon a bon a bon takkal nga sa bopp ci lu bon a bon a bon loolu xam nga foo koy jén génnee ji fuur fuur yoo xam ni fuur yu yées la tannuur la tudd fa la njaalookat yu góoree gi jigéen ñi ñoom rek la ñuy lakk futti leen ba ñu set beneen bàkkaar bu nit def booy lakk da ngay lakkaale ak yenn yére donte yére yi dalay lakkaale njaaloo ku koy lakkee da ngay futteeku ba set ndax jamono bi ngay njaaloo su yére àndu ci de yére bi nga sol àndu ci mbaxana mi nga soloon àndu ci lu tax borom bi ne wa libaasu taqwa zalika xayr yërëb ragal yàlla soloo ko moo tax nga njaaloo kon danañu dindi yërëb ragal yàlla ci yow da ngay mujj nekk ku torox mbaam xuux moo lay ne sax wala golo yàlla nañ ci yàlla musal kon ndaw ñi conserver leen seen bopp téye leen seen bopp jamono bi ñu toll nii wér amatul de du ngeen xool rajo yeeg télé yi li nit ñi di jaay ci ay aphrodisiaque kenn xamul nu mu toll mooy jamono bu yàqu lañ toll soo bëggee conserver sa bopp téyel sa bopp ba heure bu yàlla dogalee nga mën a takk jabar wal yastaafifi alladina laa yajiduuna nikaahan xatta yugniyahum allahu min fadli yàlla nee na yéen ñi amul lu ngeen takkee na ngeen jéem a fegu ngeen fekk seen bopp